Home Choice Sénégal mooy këru ouvrier yi mooy këru professionnel yi képp koo xam ni da nga di professionnel di liggéey wala ngay ouvrier da ngay soxla outillage ñun ñooy numéro un ci wàllu outillage fii nga xam ni moom moo di ci réew mi ak fépp foo dem ci àdduna bi la marque Total est de renommée internationale lan nga bëgg groupe électrogène aspirateur pompe émergée motopompe meuleuse perceuse visseuse wala lan Total suñu adresse mi ngi nekk 82 avenue Lamine Gueye téléphone 33 821 45 45 suñuy partenaire ña nga ci Mbour Tiwawan Pikine Tali bu mag Touba Kaolack mais aussi à Saint-Louis la marque Total foo dem ci àdduna bi fekk ko fa ndax qualité
jataayu fatwa yow mi am lu la ump ci sa wàllu diine jaaxle jeex na leeral fm jagleel na leen seen émission bi di alfatawa alfatawa di émission buy tontu seeni laaj yu jëm ci seen wàllu diine àllarba bu jot vingt et une heures jàpp vingt deux heures ngeen ci ànd ak al oustaz abdallah baba dieng mu ciy feggoo ak ak docteur mouhammad ahmad lo ak seen émission bi di alfatawa ku am ak laaj jëmale ko ci émission Fatawa mën nga koo bàyyi ci numéro bii 77 396 42 42 nga mën faa bàyyi sa laaj ci whatsapp bi.
kumpa tàggalikoo nag yéen ci lu jëm ci seen wàllu diine.
عزمات يميني لو عندي عمر يكفيني لنشرت تعاليمه alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokk auditeurs yi nga xam ne yéen a ngi nii topp ci seen émission alfatawa bi ngeen di ànd ak cheikhana ak docteur Mouhammad Ahmad Lo xafidahullahu waraa yéen ñi ñuy topp ci leeral bi ci Louga wala keppaar ga ca Kaolack wala salaam ba ca Mbàkke wala leeral ba ca Ziguinchor wala leeral ba ca Podor wala ci yeneen réseaux sociaux yi moo xam ci YouTube beeg Facebook beeg WhatsApp beeg yépp rek ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala dafa ñu tawfiq defal leen ko kon Cheikhana ñu jox la nga ibbi ñu doogay ñëw ci lenn li fi rot ci laaj.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ñu déglu kon noo ngi del siwaat ànd ak yéen ci sun jotaay bi nu bokk muy jotaayu alfatawa di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu boole ñu tawfiqam ak ndimbalam ak yërmandeem def ci réew mi jàmm def ci ak dal def ci tawfiq ak naataange kon ñu daal di jublu Cheikh Abdallah ci liggéey bi gannaaw buñ la waxee asalaamaaleykum yaag ki nga dendal ci xarala gi jazakumullahu xayran cheikhana wa barakallahu fiikum cheikh bi laaj bi mi ngi jógee Hollande soxna si mu ni ndax dina dagan ci imam muy xutba bu mu yàgg mu dagg julli gi mu dagg xutba bi di am ku muy waxal ci biir julli gi ci biir ñiy julli si daal wax ak ñoom ngi continué waat xutbaam alhamdulilah su fekkee ne imaam day mi ngi xutba fi mu sañ a waxee nit rek mooy bu séenee ku def loo xam ne sudul noona la loo xam ne lu ma ne sa waxee moom la am na sudul noona joo xam ne moom su ko gisee du ca wax maanaam su fekkoon ne daa nekk di xutba gis kuy wax wala ñaari nit ñuy waxtaan ci biir xutba bi du ne leen noppi leen ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na su fekkee gis nga kuy wax ci biir xutba bi nga ne ko noppil nee na tàbbi nga ci mbóorant maanaam ay caaxaan te ku tàbbi ci ay caaxaan amul ajjuma maanaam yoolub ajjumaam day wàññiku waaye nag ci misaal bu gisoon koo xam ne daa dugg ci jàkka ji rek daa di ñëw toog te julliwul ñaari rakka kooku am nañ dalil buy wone ne daf ko war a wax ne ko jógal julli ñaari rakka comme ni ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxe woon Suleyk al-Ghatafani su ko waxee loolu ba noppi nag daal di jàll moo xam ndax waa ji def na lam ko wax wala defu ko waaye daal sañ na ko wax loolu moom boobu dalil daal am nañ ko wallahu taala alam waffaqakumullah jërëjëf cheikhana cheikh bi kii nee na moom ab vétérinaire la yeesaa dañ leen di woo ci fas woo xam ni dafay fekk mu gaañu gaañu bu metti wala daal mu toll ci feebar boo xam ni li nga xam ne kii dootul dundati woo leen pour ñu mën koo éliminer mën koo rey mu ni ndax dina dagan wala déet alhamdulilah mala yi nga xam ne dañ leen di rey sañees na leen a rey ndax rey mala moom benn day doon ci rey ko jëriñoo ko ndax lu ñuy rey di lekk réere wuñ mbir ci ne fas dagan na ñu lekk ko donte nag miinee su ko ci société bi nga xam ne fi lañ nekk danañ rey mala it ngir mala mii day lore dafa bari lor yu muy lor doomu aadama yi am yoo xam ne nag lekkeesu leen te loreesu leen itam te lorewuñ kenn loruñu kenn itam yooyu it des na leen rey ngir sabab lu mel ne lii mu tudd ci sabab yi la mooy bëgg koo noppal ngir coono boo xam ne dal na ci kawam te xam nañ ne duutu wér lu mel ne lii mu wax ni muy aw fas moo xam nun danoo wax ne danañ ko lekk wala duñ ko lekk waaye ñooy wax ne danañ ko lekk ak ñuy wax ne duñ ko lekk ñoom ñëpp ñoo ci bokk yam su fekkee àgg na foo xam ne wóor na ne moom dundatul te mu ngi jànkoonte aku metit te am na docteur bu ko mën a def loo xam ne dana ko génne àdduna mu noppalu loola dara du ca nekk insha allah wallahu taala alam baarakallahu fiikum cheikhana wa jazakumullahu xeyran cheikh bi kii nee na moom buy génn azaka nee na yàlla dafa def ay soxnaam ñaari soxnaam yépp ñu ci nekk seeni waajur da doon nekk ñoo xam ne ñu soxla lan nee na ndax dina dagan mu jox leen ci azakaam nee na nag dundalu leen yorul seen dépense yorul seen dara waaw mais ñoo jur ay soxnaam ndax dina daga mu jox leen dépense ama mu jox leen ci azakaam alhamdulilah ñi nga xam ne dañoo jur ay soxnaam su fekkee ñu ñàkk lañ te amuñu ku leen yor ci seenu njaboot su boobaa ñooñu ay fuqaraaw lañ wala ay masakin dañuy daal di dugg ci ñi nga xam ne ñoo yeyoo asaka su boobaa mu jox leen asakaam du wàññi dara wallahu taala alam jërëjëf cheikhana waffaqakumullah cheikh bi kii nee na dafa am seen mbokk boo xam ni dafa takkoon soxnaam nekk na moom yàgg mu tukki at bi mu tukkee at bi mu ñibbisee ñu def ñeenti weer mook soxnaam soxna si am doom ñu ne juru ko ba tàqale leen sax ba ni tamit ñu ni tamit ci ngiru Malik ñoom ñaar dootuñu sëyati ba mukk muy laaj loolu lan la ci lislaam wax ci loo xam ne lu wér la alhamdulilah tukki na am at dikk am ak moom ñeenti weer mu am doom loolu rek day doyul firnde ngir ñu wax ne jurul doom ji loolu rek doyul firnde ngir ñu xam ne jurul doom ji ndax ëmb ba gën a yàgg boroom xam-xam yi gëstu nañ ko bu baax a baax ci fiq ëmb mën naa dem ba jéggi lool diir bi nga xam ne mooy biñ miin muy juróom yenti weer mën naa dem ba ci fukki weer mën naa dem ba ci fukki weer ak juróom mën naa dem ba ci yaari at mën naa dem sax ba ëpp loolu téere fiq yi nettali nañ lu ëpp loolu tudd sax ay imaam yoo xam ne ëmb nañ leen ëmb boo xam ne ëpp na loola kon loola du cëslaay ngir ñu ne jurul doom ji waaye nag su fekkee ne ndaw si ci boppam moo reconnaître ne kat moom mii am na fu mu jaar ba tax na doom ji moom waa ji jëkkëram ji juru ko ah su boobaa nag moom kenn mënu ci dara waaye su dul loola daal la lislaam atte mooy alwaladu lil firaash doom ji juddu te fekk jigéen ji mi ngi ci néegub sëy day doom jooju moo ko jur ab tukkeem rek nag fukki weer ak ñaar wala fukki weer ak juróom maanaam nga xam ne diir ba mu gëjee ak moom ak fi mu amee doom noonu lay toll loola téewut doom ji moom sharia moom la koy jox lu dul su amee ku reconnaître ne jurul doom ji te loolu jigéen ji rek moo ko mën a def wala am ku teg bëtam ci moom gis ko muy njaaloo yooyu nag su fekkee dara amu ci képp koo xam ne wax nga ne moom mi jurul doom ji xamal ne kooko sharia moom dóor na la juróom ñett fukki yar moo tax làmmiñ yi dañ ko war a téye ci lu mel noonu wallahu taala alam jazakum allahu xeyran jërëjëf cheikhana cheikh bi soxna si nee na moom borom këram du moom dong la am am na ko am ñeneen mais nee na yeesa dina soxla borom këram borom këram gàntal ko ni ko dama sonn wala yu demee noonu mu ni ndax bu boobaa dina dagan moom mu jël ay ay jumtukaay di ko jëfandikoo bu ak boppam ba yëg boppam ba daanu ñaareelu laajam bi mu ni ndax noonu moom it yeesaa muy bëgg soxlaa borom këram borom këram joxe ngànt ndax borom këram da ciy am bàkkaar comme bu ko borom këram soxla woon moom mu jox ko ngànt
alhamdulilah su fekkee ne borom këram bi day ngànt loolu muy joxe ngir wax ne dafa sonn dafa doon lu gànt rek lu gaar rek ci benn bis loolu moom mën naa gaar doomu aadama ndax doomu aadama ak dundam dafa bari ay jaar-jaar ak i dugg-dugg ak i génn-génn su fekkee ne bis dafa ñëw boo xam ne sonn na ba lot ba mënta jox soxnaam xaq xam ca bis boobee day loola moom lu waree sa mën a toléré la luñ ko war a mën a jéggal la waaye nag lu mel noonu warta bari nag su fekkee ne dafa dem bay yor nag ñaari soxna dafa war a fekk ne moom mii mën na leen a yor bu wér a wér a wér ci dëkkal leen ak ci mën leen a dëkkoo su fekkee dafa lott ci loola daa warta dugg nag ci yor lu ëpp benn soxna su fekkee ne benn soxna la mën a yor ala kulli xaal na xam ne ak ay moom xaq la yoo xam ne dañ ko war a jox jigéen ji waxisul nekk ay nag saa boo aaye bu nekk faaw nga jote ak soxna si waaye ay ga moom na nga ko ko jox ñàkk a jote gi it sañte néew nag ba àgg ci di ko lor soxna seet na xam ne nag loolee nu mën a demee sañte am lenn lu muy jëfandikoo loo xam ne it doon li ñu tuddee istimna muy jéem a bànneexal sa bopp ci anam yu mel noonu loolu dafa xaram dëgganul kuur góor di ko def dëgganul ko jigéen di ko def borom bi tabaraka wa taala ca njëlbeen ak suuratu almuminuun ba mu waxee ñu baax ña ak nañuy mel ak seen ak julleeg nañuy ragale yàlla ak yooyu yëpp ba àgg ci wàllu say def ne walladina hum li furujihim xaafiduuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum gayru malumin faman ibtaga waraa dalika fa ulaika hum alcaaduun borom bi nee na ñi nga xam ne dañuy wattu seeni pay lu dul ci seen kañuy dencanteel loola moom nee na kenn du leen ca yedd jigéen juy sëy ak boroom këram ak boroom kër buy sëy ak soxnaam foofu yaraange amu fa waaye nag ku jéggi loola baatu ku jéggi loola moom day dem ci lépp njaaloo nga ca defal sa bopp nga ci li ñu tudd masturbation dooy yëpp day dugg ca biir loola nee na fa ulaayka humul aadun noonu ñooñu ñuy mooy ñiy jéggi frontière yàlla ya mooy la yàlla tere ñoo ca dugg kon def nañ lu xaraam wallahu taala alam jërëjëf cheikhana waffaqakum allah cheikh bi laaj bi mi ngi jóge Kaffrine kii nee na jumaa ji ñuy jullee dafa am benn pantre bu xaw a nekk ci kanam fa la imam ba di jaar fa lay toog sax bu heure bi jotee mu dugg nee na nag day am ñoo xam ni ñoom fa la ñuy jullee fa la ñuy jullee te néeg boobu moo gën a féete penku fi imam bi di taxawe ci mihrab bi mu ni ndax loolu dina dagan wala déet alhamdulilah day mel ne laaj bi day jëm rek ci julli ci kanam imaam loolu day waroom xam-xam yi tere nañ ko ndax ci xadis lañ ko tegit mooy li yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax ne innama juila al imaamu li yutamma bihi imaam dañ ko wut ngir ñi roy ko roy ko nag mooy nga féete ko gannaaw ci lépp fa muy taxaw day féete kanam fa ngay taxaw la muy def day jiitu la ngay def noonee la ñuy roye imaam ah su fekkee ne nag dara daa ñëw ba tax mu taxaw ci kanamam lenn ci waroom xam-xam yi nee nañ dañ koo sib maanaam yàqul julli ga wala dañ koo sib waaye lu mel ne ngirum ahmad ibn hanbal rahimahullah ñoom dañoo wax ne loolu ak julli da cay yàqu ku julli ci kanam imaam sa julli day yàqu kon nag yooyu yëpp yu mat a bàyyi xel la di ko wattandiku wallahu taala alam jazakumullahu xayran jërëjëf cheikhana cheikh bi soxna si nee na jigéenu wérul yan ñaan moo baax ak yan muslaay yoo xam ne da koy def alhamdulilah muslaa yi ñu xam de mooy yi nga xam ne rek mooy adkaar yi yi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jàngale suba ak ngoon adkaar yooyu bari na njëriñ lool ndax def gi ci boppam ak jaamu yàlla la nit ka di ca am tuyaaba waaye def gi ci boppam xëccukaayu njëriñ la day tax nit ki la muy ñaan yàlla nangu ko te ay ñaan yu bari tam da ca nekk yu xëcc njëriñ waaye def geet day dàq lor kon ay muhassinaat lañ yoo xam ne dañuy fegal nit ki ba lor du dal ci kawam yetti njëriñ yooyu na njëriñ yu màgg la indi tuyaaba xëcc njëriñ dàq lor su ko defee ba noppi nag bu ko neexee mu tàllal ay loxoom tudd aajoom loolee nekk ci biiram mu ñaanal ko yàlla wattu ko ba mu génn ci jàmm te doon loo xam ne lu tegu ci siraatul mustaqim la loolu sañ na ko wallahu taala alam jërëjëf cheikhana waffaqakumullah cheikh bi kii nee na dafa am koo xam ne daal seenub dëkkandoo la xëy na dafa wax naan yàlla du lakk kenn yowmal qiyaam ndax ñi muy lakk nit ñi ay alalam la kon kum ci lakk yàllam dong moo perte mu ni kooku dañuy jàpp ni rek dafa wax waxu kéeféer wala dañ koy atte atte bi yéeféer alhamdulilah kooku day wax na wax yi ni ñàkk teggin yu jéggi dayoo ndax bu dee day wax ne yàlla bu lakkee nit ñi mooy perte borom bi tabaraka wa taala day lim bind lépp bu ko boole woon dugal ko sa war a lakk ko it baatu perte wari su ko jëmale ci moom ndax kat borom bi tabaraka wa taala nekkoon ne yàlla ba mu bindagul dara te loola wàññiwu ko woon dara bi mu bindee lépp it ba lépp feeñit loola yokku ko dara fa mu nekkoon subhanahu wa taala foofa rek la nekk kon kaddu yi nga xam ne day génne ci doomu aadama yi jëm ci seen borom bi leen bind te moom leen jàpp ci seen i càmbarga baat yooyu war nañ koo xool bu baax a baax a baax a baax te wattandiku di tàbbi ci lu mel noonu amma nag borom bi tabaraka wa taala nga wax ne du lakk bindeef yi loola moom weddi alquranul karim la su xamee gravité li mu wax ba noppi mu dëgër ca nag kooku moom kéefar lay daal di doon waliyaasu billah naam jërëjëf cheikhana waffaqakumullah cheikh bi ay laaj yu bari ñëw nan ci azaka nit ki ci ban taux fii ñu toll nii lay am téye ko fi ba déwan mu doogoy mën a génn azaka te nee na tamit ndax dañ koy natte ci or wala dañ koy natte ci xaalis alhamdulilah taux asaka ñi koy tudde nisaab biñ ko mujjee gëstu mi ngi toll ci diggante trois cent cinquante mille jëm ci trois cent soixante quinze mille moo tax dañuy wax ne ko am trois cent cinquante yoo xam ne am na ci sa loxo at daal maanaam cosaan la am na ci sa loxo at sooy boo nga génneel ko asaka ndax nag dañuy jël nisaabu zahab muy or wala nisaabu fid nisaabu fidda muy muy xaalis jël xaalis bi moo gën ndax or bi moom nisaab bi day gën a rëy nisaab bi day gën a bari kon jël loo xam ne da ngay teel a sellal sa asaka loola mooy li gën ci yow ndax alal ji kat joxe asaka ji ak sellal la ñaareel ba loolu moo gën ci fuqaraaw yi nga xam ne ñoom nga koy jox ndax am trois cent cinquante mille génne asakaam joxe ko moo gën di xaar ba am deux millions door koo joxe kon tànn nisaabu fidda bi la shakka ne moom mooy li gën wallahu taala alam
jërëjëf baarakallahu fiikum cheikh bi kii jonwaar lay wootee nee na ñoom dañoo am aada boo xam ni bu nit ne soxnaam fase naa la duñ ko jàppe fase lu dul dafa bind lettre jébbal ko ay waajuram fekk bindagul lettre duñ jàpp ni tas na mu ni ki nga xam ne nag nee na soxnaam fase naa la te jotul def loolu mu ni ndax sharia dina ko tàbbil wala dañuy dellu ci aada alhamdulilah loolu yi ma wax ne mooy seen aada mu di passé faaw ñu bind ko yëgal ko waajur yi soxna si loolu moom seen aada la waaye bokkut ak shariatul islaam lislaam moom lim santaane gépp góor goo xam ne jàkkaarloo nga ak sa soxna ne ko fase naa la su boobaa moom moo ma fase daal nay tàbbi kenn du ca charte mukk ne na ko bind ndax lu ëpp ci ñi nga xam ne ñooy fase seeni jabar ci kaw suuf mënuñoo bind sax faf kon loola moom musta nekk ab charte ci lislaam te it du ko nekk ba mukk su fekkee yëgal ko parents yi la nag loolu moom ak yëgle la rek goo xam ne lu jaadu la waaye su xasee fas na su fase soxnaam moom te moom moo ko takkoon fase ma moom day daal di tàbbi والله تعالى أعلم jërëjëf cheikhana barakallahu fikum cheikh bi kii Omar la di wootee France nee na dafa am soxna soo xam ni dafa tuub dugg ci lislaam papaam ak yaayam ak ay mbokkam yépp ci beneen diine lañ nekk mu dugg ci lislaam waaye nee na fan yi daf ni ko dafa am ku ko bëgg a takk mu ko- muy sàkku ci moom mu nekk walli yoom mu nekk kilifaam bu koy maye mu ni nag mm, bala mu ko wax waaw mu laaj la ba pare ndax sharia dina ko wéyal wala déet alhamdulilah jigéen ji bu fekkee ne daa dugg ci diine lislaam te ay parents nekkuñu ci diine lislaam su amee ku koy labat jullit rek la mën a doon su fekkee ñu ngi koy maye it wàlli yoom moo koy tànnal boppam ci jullit yi mooy seet ka ko doy ne ko boo demee nga toog palaasu kama war a maye su demee kooka mooy toog ci palaas boobee wet gi ci ma sox mat a xool rek ci yeneen euh, réew yi ci lu mel noonu mooy xool seeni loi ndax su fekkee ne maye nañ doomi jàmbur ci lu mel noonu am nay problème yu mu leen mën a indil ci wàllu yoon wala déet Euh, waaye lu gën a bari mooy réew yooye moom ko xas majeur su la neexee mën nga def ci sa mbirum bopp lépp lu la soob te yoonu kenn du ca nekk ala kulli xaal dana rafet rek mu yëgal ko ay parents xamal leen ne am naa ku ma bëgg danañ def suñuy formalité islamique pour ñu fasal ma sama sëy yëgal leen ko rek su ko defee daal di tànn wàllu yoom wa ko doy ñu daal koy maye wallahu taala alam waffaqakum allah jërëjëf cheikhana cheikh bi laaj bi mi ngi jóge ndar ci Pape Djibi Sarr moom nee na li muy laaj mooy planning familial moom xam naa ni yàgg na fee jaar waaye nee na daal moom lay laaj pour bëgg cee xam lu leer alhamdulilah euh, planning moom ñaari anam rek la am mooy bu fekkee ne eh, kii dafa bëgg a nàmpal doomam yaari at yu mat kooku sañ naa jëfandikoo planning ba nàmpal doomam yaari at yu mat borom bi tabaraka wa taala nee na wal walidaatu yurdi'na awlaadahunna hawlayni kaamilayni liman araada an yutimma radaa su fekkee ne nag dafa nar a weesu ñaari at faaw ab docteur mooy wax ci wàllu wér-gi-yaram ne ndaw si attanatul ay ëmb yu jege. daal di wax ne faw mu noppalu yetti at wala yenti at wala juróomi at wala diir boo xam ne daal dëppoo nañ ñoom ñaari docteur wala ñett ci ne ndaw si mënta bañ a toog diir boobu door a ëmbaat su boobaa day def lañ wax daal di jëfandikoo planning waaye eh, ñu xam ne wér-gi-yaram dong mooy tax ñuy planning waaye yeneen yi xalaat naan diisut mën a yar gone yi buñ màggeeg diisu leen mën a dundal ak yooyu yëpp ay caaxaan lañ yoo xam ne charia al islamiya moom considéré wu ko jàppe wu ko it wax joo xam ne ju fullaw la naam jërëjëf cheikhana waffaqakumullah cheikh bi waa ji nee na moom dafa am sérieux problème ndax dafa nekkoon ci projet waaj a takk ñaareel mais bi di ko soxna si yégee rek nee na daal tension bi di yéeg ba aju nee na fan yépp daa nekk di jaabante di ko yóbbu hôpital ak yooyu mu ni nag dafa bëgg a xam nu muy def ndax dafa war a wax ak kële bàyyi projet bi takk bi ndax mën a jublu ci soxnaam wala nu muy def nee na daal jaaxle na alhamdulilah ah su fekkee ne day mën na bañ a takk soxna ngir ne soxnaam si mu yor moom su takkee soxna tension am day yéeg su fekkee loolu convaincre na ko moom ngir mu bañ a takk soxna su boobaa moom wax dëgg yàlla kenn du ko ne par force tey nga takk soxna waaye nag tension bu yéeg rek nag moom du tax nit ki bañ a takk soxna nañ ko yóbbu rek ñu faj ko ak jox ko garab yoo xam ne day wàcce tension bi te su bëggee takk soxna mu takk soxna ala kulli xaal naam jazakum allahu xeyran waffaqakum allah baarakallahu fiikum jërëjëf cheikhana tontu yi leer na naañ ñi yal na yàlla subhaanahu wa taala barkeel xam-xam bi Euh, nit ñaa ngi ñaan nit ñi yónnee ay cant fu nekk ci àdduna bi fépp ci continent yi kon yal na yàlla nangu ñaan yépp amin ya rabbul alamin
محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدم محمد رويت بالنور طينته محمد لم يزل نورا من القدم محمد محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على علمي محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمات والظلم محمد قائم لله ذو همم محمد خاتم للرسل كلهم La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la julli leen ci moom julli naa ci moom kii moo ñu wan yoon yooneen du moroom julli leen ci moom julli na ci moom kii moo ñu wan yoon yoonen du moroom julli leen ci moom julli naa ci moom kii moo ñu wan yoon yooneen du moroom julli leen ci moom julli na ci moom kii moo ñu wan yoon yoonen du moroom makka la juddoo julli leen ci moom yax bu rëy la bokk moom julli leen ci moom maamam yëpp sell la julli leen ci moom julli leen ci moom julli naa ci moom kii moo ñu waan yoon yoonen du moroom atum ñay la juddu adwa wa gënanaat abrahani dafay tooj kaaba ga di waat ay picc la bur yónni ñu dal di koy faat julli leen ci moom julli naa ci moom kii moo ñu waan yoon yoonen du moroom laata muy juddu
la baayam jadeel juróom benn atam la yaayam jadeel juróom ñaati atam mam jadeel di dee julli leen ci moom julli naa ci moom kii moo ñu wan yoon yoonen du moroom ba muy jël soxna atam néew na lool ñaar fukki atat juróom la amoon soxna Khadija jigéen ju man juman jumaa julli leen ci moom julli naa ci moom kii moo ñu waan yoon yoonen du moroom aka am jom liggéey lañ ko naawe woon sàmm na commerce na barga bari lool maandu te gàcca moom ñëpp a seede woon julli leen ci moom julli naa ci moom kii moo ñu waan yoon yoonen du moroom daadan dem ca xuntuwa di weetal boroom dëddu alal soxna doom ngir xam kuy boroom iqra la njëkk wa naawi suñu boroom julli leen ci moom julli naa ci moom kii moo ñu wan yoon yoonen du moroom yàlla yónni ko mu ñëw xel waanan ko jaam ñu naan dof la kii wérul bu ko kenn gaam ña ko sonnal daan ko xeex ñoo doon ay mbokk
julli leen ci moom julli naa ci moom kii moo ñu wan yoon yoonen du moroom jàppa saaba ya di dóor rey ñi ñee ñu taan di leen mugal subak ngoon daawuñ bay xaaxaat ardine shahiidi moo doon seen baba
julli leen ci moom julli naa ci moom kii moo ñu wan yoon yoonen du moroom moo ñu jàngal alquran julli leen ci moom maytu nañu rey nasaraan julli leen ci moom ëllëg muunan ummati julli leen ci moom wat naa ni kii moom amu fi moom julli leen ci moom julli naa ci moom kii moo ñu waan yoon yoon yoonen du moroom julli leen ci moom julli naa ci moom kii moo ñu waan yoon yoonen du
Home Choice Sénégal mooy këru ouvrier yi mooy këru professionnel yi képp koo xam ni da nga di professionnel di liggéey wala ngay ouvrier da ngay soxla outillage ñun ñooy numéro un ci wàllu outillage fii nga xam ni moom moo di ci réew mi ak fépp foo dem ci àdduna bi la marque Total est de renommée internationale lan nga bëgg groupe électrogène aspirateur pompe émergée motopompe meuleuse perceuse visseuse wala lan Total suñu adresse mi ngi nekk 82 avenue Lamine Gueye téléphone 33 821 45 45 suñuy partenaire ña nga ci Mbour Tiwawan Pikine Tali bu mag Touba Kaolack mais aussi à Saint-Louis la marque Total foo dem ci àdduna bi fekk ko fa ndax qualité لو عندي عمر jataayu fatwa yow mi am lu la ump ci sa wàllu diine jaaxle jeex na leeral fm jagleel na leen seen émission bi di alfatawa alfatawa di émission buy tontu seeni laaj yu jëm ci seen wàllu diine àllarba bu jot vingt et une heures jàpp vingt deux heures ngeen ci ànd ak al oustaz abdallah baba dieng mu ciy feggoo ak ak docteur mouhammad ahmad lo ak seen émission bi di alfatawa ku am ak laaj jëmale ko ci émission fatawa mën nga koo bàyyi ci numéro bii 77 396 42 42 nga mën faa bàyyi sa laaj ci whatsapp bi kumpa tàggalikoon ak yéen ci lu jëm ci seen wàllu diine عزمات يميني لو عندي عمر يكفيني نشرت تعاليم